خرجت يوم سبت سامن أثر لخدمة المختار في دار سفر taarix ba mooy junne ki ñetti téeméer ak su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete mbokk yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel fépp fu ngeen mën a nekk tey bàyyi xel suñu télévision Touba TV ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm waaye di rafetlu ànd ngeen di ànd ak ñun mbokk yi ni leen ko baaxoo di defee saa su nekk muy euh, jataay bi nga xam ne mu la ñu dippee découverte muy gox yi nga xamante ne bi ay gox yu am solo lañ ci biir senegal Sénégal na ci lislaam waaye ci jaar-jaari ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ñu fas yéene ànd ak yéen jagleel leen ci ay gëstu lan mooy taarixam ci kaw noonu nag ci lañu àndee ak Serigne Mbacke Mbodj Serigne Ousseynou Mbodj ñu fa yéene nag indi leen gëstu bu am solo ci gox boo xam ne kenn mënut a tudd taarixu ku tedd ki te tudduloo ko ban gox la. Mbacke baari Mbacke baari Jolof di gox boo xam ne nii am na ay jaar-jaar ak ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. kañ lañ ko sanc ak kan moo ko sanc waaye lan mooy ay jeexitam digganteem ak ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. waaw xam nga euh, sëriñ bi Jolof la dëkk maanaam fi la euh, ay bokkam yëpp dëkk. ndax boo xoolee Mbousso bi euh, suñu digganteeg moom mu ngi a toll ci ay juróom-ñaari kilomètre te Mbousso bi googu soxna Mariama Bousso mii way juróom fi la gane àdduna fi la nijaayam dëkkoon fi lay maamam dëkkoon ñaareel ba itam mbake Bari gi itam maam Maaram moo ko sanc mooy Mbàkke gi mag ci Mbàkke yi maam Maaram Mbàkke moo ko sanc te ma nga xam nga ne maam Maaram am caatam moo jur maam Mor Anta Sali muy way jur sëriñ bi maam maaram bati itam Ahmadou Soxna Bousso mu jur maam Assawaalo mu jur maam Jaara walbatiku Jolof daal fi la léppam ci ndey ak bàyyi gannaaw bu ñu jógee gànnaar wàcc sa Fuuta ba ñëw Jolof daal Jolof ci la am ay mbokk. waaye muy dëkk boo xam ne dëkk la bu bëri taarix diggante buur yi tubaab bi ak yeneen ak yeneen muy dëkk boo xam ne daal bëri na lu aju ci loolu taarixu Sénégal loolu lépp dana ci ñëwaat ak yéen. Mbacke Bary dañu ne mbakke ne baari Mbacke moom kenn ku nekk xam na ne aw sant la baari itam am na lu mu wundu waaye nekk fii ci Jolof kon tur woowu tey mbokk yi lan moo ko andi mu di Mbacke Bary. Mbacke Bary tur yi ko sabab mooy euh, ci jamono boobu euh, Mbacke Mbacke dañ fee bariwul woon ba tax na fu ñu masaan nekk rek dañ leen di ràññee bu ko defee Bary gi dafa mel ne ab déeg la. léegi nag bi fi ñëwee nag sanc fi nag ne Mbàkke Baari loolu moo waral turu Mbàkke Baari bi sëriñ bi nag moom bi mu fi ñëwee moom daana def fu mu dem euh, wutal ko aw tur ba tax na amoon na fi barab wax nañ ne fii Daaru Xuddoos la ko tudde woon bi fi ñëwee ndax mi ngi génne woon ci këram gi ci Daaru Xuddoos ci Touba waaye bi mu ñëwee itam fekk na fi turu Mbàkke Baari bi te turu Mbàkke Baari nag fekk na ay maamam sancoon ko moo waral gannaaw yàggu fi loolu tax turu Mbàkke Baari desu ba nga ni bi mu fi nekkee Mbàkke lañ ko daan wax di ci ask di ko askanale baari yi baari nag ab déeg la boo xam ne dafa nekk fii ñuy wax baari xoos ak baari alom mooy ay ay ay garab la yoo xam ne dafa nekkoon ci biir déeg bi moo waral ñuy wax Mbàkke Baari waaye Sëñ Tuubaa moom wax nañ ne fii moo daarul xudus la ko tudde woon daarul xudus gam defoon lextikaaf ñëw fii moom la ko duppee. waaw turé dëkkam yëpp dafay delluwaat ci yàlla daaru salaam gis nga ba mu demee fële daaru rahman daaru xuddoos kon mbàkke baar tamit noonu la dafa nekk kërug suñu borom mi aji euh, fent ji kon mbàkke baar gi noonu dëkk bu riis dëkk bu am histoire dëkk bu am taarix يا سائلي عن سبب تأزيمي يوم الخروج زيغنا القديم waaye nag am dëkk yoo xamante ne bii daf ko wër kon nag baax na lool ñu xam Mbàkke Bari tolluwaayam dëgg dëgg dëgg ana dëkk bi tey fan la nekke ci Jolof Mbàkke Bari nag mi ngi nekk buñ ko mënee wax ci moomeelu Jolof nañ ko xamee woon bu njëkk nga xam ne ni la Sénégal tëddee woon waaye jamono jii nag mi ngi nekk ci région Louga département Linguère commune commune Thiamène Pass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 fii moom fii ñu nekk moom mooy Mbacke Bari gi mag ci mboole Mbacke Bari yooyu nga xam ne euh, Sëñ Tuubaa fi la jóge woon dem ci géej gi. waaye dëkk bi tey nekkee ci Jolof kañ lañ ko sañc ak kan moo ko sañc ci ni ko sëñ Basiiru waxee ci minul baax xadim irwaanu dem waxe ko loonu muy ay maami sëñ Tuubaa sancoon nañ fa ba foofa ràpp ba gent sëñ bi nag ñëw sosaat foofa Mbakke Bari maam Maaram moo ko jëkkoon sanc ay jamono yi 1700 dëkk na fi lu toll juróom-benn fukki at door fee jógee sanc Mbakke Jolof gi mu tëdd yàppale yitam ñu sancal ko Mbakke Bool mu yóbbu kon daal mën nañoo wax ne maam Maaram moo sanc Mbakke Bari sanc Mbakke Jolof sanc Mbakke Bawol kon bi maam Maaram juddu daal ñetti Mbakke yëpp ñu ngi fonk se ndax bi mu jógee fii bàyyi na fi ñaari doomam Ahmadou Soxna Bousso ak Sayid Soxna Bousso dem Mbàkke Jolof ba mu fa amee diir sanc Mbàkke Bawol yóbbu fa Ahmadou Farimata wa illa Ceerno Farimata xam naa maam maaram ak ak ak mi ngi war a doon ay xam naa année mil six mille sept cent daal xam naa du ko war a sori ndax booba xam naa xëy na takk gi dëgg-dëgg de waaye du sori jamono yooyu moom mille sept cent du du ko sori mooy ñetteelu dëkk bi sëñ Tubaa sànc ndax sëñ bi bi waajuram wàcceeb liggéey mu ñëw Mbàkke Bawal fekkoon na ko fekk na mu it ab dëkk ay nit ne fa waaye dëkk bi sëñ bi njëkk sañcal boppam mooy Daaru Salaam ci dasasin bi gàddaay bi amee junni ak ñett téeméer ak ñeent ñaareelu dëkk ba mooy Touba wasasin bi gàddaay bi amee junni at ak ñett téeméer ak juróom benn ñetteelu dëkk bi mu sancaat nga xam ne ci coobare boo xam la mooy Mbàkke Bari ca bay sasin bi gàddaay bi amee at ak ñett ak fukk ak ñaar mooy xam nga maam maaram bi mu ko sancee moom Mbàkke Bari lañ ko daan wax xam nga Mbàkke ga ca Bawol maam maaram moo moo moo joxe woon ndigalul doomam mu sanc ko ñu koy wax Mbàkke Bawol fii nag maam maaram moo ko sancal boppam ginnaaw boo xam ne jàng na alxuraan ba noppi fii la njëkk sañ sanc dund na fi lu mat juróom benn fukki at kon ci weeru koor wa ni ñu ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yal nañ ko sunu borom fayal nettle ci bi muy woote màggalu Touba 1979 euh, wax ni sëriñ bi bi mu defee lixtikaaf ci euh, jàkkey Daaru Xuddus ji te sallallahu alayhi feeñu ko ànd ak ahlu badr mu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ni dafa bëgg bokk ci ñoom ba ñu waxante la ñu waxante ba ñu nangul ko xamal ko ni koy nag dañ laa aaral dëkk bi euh, boo bëggee jot ci nattu bi da génn loolu moo tax ba mu waree borom daarul mooti la yebal ci weeru mars 1895 mu dem sañ ci barab boobu di euh, Mbàkke Bari Mbàkke Bari nag li tax sëñ sëñ Tuubaa sañ ci ko dafa am ñaari sabab dafa am sababu zahir am sababu baatin sëriñ Basiiru mbég ma nee la yàlla defaloon kalima fi daari defal ko Ibrahima ba yàlla buur ba farataal tabaski ak tam xarit may na ko gaay mbakke bi xidmatil xadimi lil muxdoomi fil baari farlu leen ilaa tahsimi la daam wesar ca booti yoonu géej ga laay bëgga way ngeen xam ne ban baay géej ga boo ko xamul yëral ja saawu sa kóor jawaabu abdalaay loola moo nee dogan ak dem gi wala nasraano dëkk bi nag di dëkk boo xam ne am na taarix ci jaar jaari yi Serigne Touba Bamba rawtina digganteem ak tubaab bi waaye ku tedd lan moo ko lëkkale ak Mbacke Bari waaye kañ la ñëw tey ci dëkk bi nekk ci Jolof dafa am ñaari sabab dafa am sababu zahir am sababu baatin sëriñ bi moom mi ngi fi ñëw 1895 eh, ndax eh, mi ngi jóge Touba ci ñaari fan ci kori ci bisu kori ak si fii ci ñaari fan ci kori 1895 tolloog 1313 sëriñ bi nag sanc ko dëkk fii ak njabootam yëpp ak mboolem taalibe yi nga xamante ne ñoom la àndaloon ñëw fi ci jamono 1895. kañ la sëñ bi sànci Mbàkke Bari sëñ bi wax naa leen mi ngi def itikaaf ci fukki fan yu mujj ci weeru koor 1312 ci gàddaay bi 1312 hijriya bi gàddaay bi amee junni at ak ñetti téeméer. ak fukk ak ñaar ci la waxanteek loolu yonent bi sallallahu alayhi wa biñ koree rek sëñ bi dem sañ ci Mbàkke Baari kon sëñ bi mi ngi sañ ci Mbàkke Baari euh, bi gàddaay bi amee junni at ak ñetti téeméer ak fukk ak ñaar ci weeru koor yi loolu moo tollook mois de mars di may wax ku dem ci téereb euh, Amar Samb bi professeur Amar Samb Euh, Cheikh Ahmadou Bamba phase aux autorités coloniales da ko fekk muy wax ne ci mars 1895 la sëñ bi sañ ci fële Jolof te mooy Mbàkke Baare. sëriñ bi mois de mars la fa def avril mai juin juillet août. ca la ban ba sañ ci baare bi isni xaalixil braay albaari fekkoon na taalibe gor ca mu romb góor ba góor gu yàlla yeela ba mu amee juróomi weer fa baare du duggi xalwatu di ñaan lil baari seytaane dem ruuxale ko ak nasraane leen jaar lay fexe fi soodaani sunu sëriñ ba yónnee fa doomi ni jaay suñu sëriñ muy Muhammad ibnu Muhammad Busa ñu gën ko xam ci sëñ Bàkki Busa sëñ Maxañu Dagana nee na sëñ Bàkki Busa moo ko xibaar moo ko wax ne ko li waral sëñ bi sanc ci jolof mooy bi sëñ tubaa sancee tubaa nit ñi dañ faa bari am ñu fa am ay soxna ci fere yi ñu bari tamit tuxu ñëw foofu ànd ak seeni njaboot ñu mujj dem ba ñu sëñ bi doon tarbiya jaxasoo ak ñu dul ñoom ñu dem ba sëriñ bi ni mu woon foofu nose ba xawa am lu ci faay am lu jaxasoo te mooy sëñ bi li bëggoon beru moom ak ñi jàng moo xam ñi jàng alxuraan la moo xam ñi jàng xam-xam la ñu beru ak ñi liggéey ku ci ne nekk ci ak wet waaw loolu moom bi muy bi muy nettali benn naaru gànnaar bu ko doon laaj yoonu géej gi la la wax ne leen fi nekke woon ndax def ko ne ña ma génne ci sama kër gi nga xam ne dama ko tabax ci jolof ci jàng ak jàngale loolu rek moo ko fi taxaw na ñëw ngir wéet ak njabootam euh, ngir sanc na Touba ñoom njëkk a wàcce tàmbali nañu samp kër nit ñi tàmbaleen leen fekk mu daaw ak li des ci taalibe yi ñëw fii ngir man leen man leen yar man leen a tarbiya man leen a jàngal man leen a yéege yóbbu leen ci yàlla loolu daal mooy li nga xamante ne mooy mun na nekke woon waaye bu ñu demee nag ba li ñu wax nit ñi tuxu di ñëw foofu ñu ne woon ci dëkk bi ñen ñu woon ci fare yi ñenn ñi am ay soxna ba tàmbalee amul njaboot jaxasoo googu nag dafa mel ni da jaxasoo googu taxul mu neex sëñ bi rawatin nag ñi doon tarbiyu jaxasoo gi ñu jaxasoog ñeneen ñi fekkoon tamit ci jamono jooju sëñ bi mi ngi am sofe lool ci dem siyaara ji baytullahi alxaraam siyaara ji yonent bi sallallahu alayhi te mooy aji màkka dem siyaara ji madina ba jot ko wax sax lenn ci ñi nga xam ne sëñ bi daana wax ak ñoom rawatina kenn koo xam ne ni tamit ci naar yi la bokk bokk ci waa daymaan yi ñu di ko wax muhammad ibnu hamdil ab xumi yi nga xam ne sëñ bi jotoon na ko wax ak yéenéem ci bëgg a dem ci euh, penku ba sëñ bi sax waxoon na ko ne ko na dem waajal murtani waajal nga dellusiwaat boo ñëwee ci mujjantalu at gi ñu ànd dem sëñ Mbàkke bu sa nee na ci ni ko irwaaw na dem waxee bi loolu amee nag muy jaxaso googu te bokkut ak li sëñ bi xeemeem bokkut ak li gënal sëñ bi nee na sëñ bi dafa diisoog moom moom sëñ Mbàkke bu sa waxtaan ak moom diisoo moom ñu jàngee ci ne kon ndekke sëñ Tuubaa daan diisoo ni ko yont bi daan defee wa saawiruhum fil amri wa amruhum suuree baynahum sëñ Tuubaa sëñ Mbàkke bu sa deen sëñ Tuubaa diisoo ak moom ci sos ab barab barab boo xam ni danañ mën ñaari kuréel yi barab boo xam ne nii da koy sos ña ñay jàng xam-xam rek alxuraan ñoo fay nekk nga xam ne sëñ bi dafa tànn sëriñ Abdourahman loo muy jàngale alxuraan tànn Cheikh Ibrahima faati muy jàng muy jàngale xam-xam nga xam ne sëñ bi dafa am pas-pasu bu sosee dëkk boobu bu sañcee dëkk boobu ànd faak sëñ daam Abdourahman Lo ànd faak Cheikh Ibrahima faati sëñ Abdourahman Lo di jàngal alxuraan ñu masal jàng alxuraan Cheikh Ibrahima Fati maam Cerno di jàngal ñi toll ci jàng xam-xam nga xam ne ku dul ñooñu ak njabootam gi sës ci moom doo fa nekk sëñ Mbàkke bu sa neen sëñ Tuubaa ne ma kon yow bu loolu amee yow dangay toog Tuubaa ak ëpp ci njaboot gi bu ko defee ñiy siyaarse di indi àddiya di yem ci yow ñi nga xam ne nag war nañoo agsi ci man koo xool ba gis ne kii war naa agsi ci man nga bàyyi ko mu agsi koo war a delloo nga delloo ko loolu yëpp nag euh, dañ ciy dëppoo sëñ Mbàkke bu sa nee na ma dëppoog sëñ Tuubaa ci loolu ne ko lii xalaat bu baax la xalaat bu barkeel la nee na sëñ tàmbuli nag di wàcc di préparer waaye nag bi xuuf yëtin la wax xëy xëyil xawaas nga xam ne lu dul ñu jege sëñ Tuubaa rek yëguñu loolu xamuñu ko bi nga xamee nag sëñ bi dem na ba ak dogoom dëgër nag ci pas-pas boobu nag sëñ Mbàkke Buso nee na waajuram sëñ bu soobee loolu yëgu ko woon te waajur sëñ Mbàkke Buso nijaay yi sëñ Tuubaa la nag ñu di ko nëbb biñ biñ àggee nag ba sëñ bi dogu nga xam ne jël na pëstéef bu wér nag mu xam ne mënu koo ñàkk a yëgal nijaayam sëñ bu soobee di waajur sëñ Mbàkke Buso bañ xamale loolu sëñ bu Buso nag bañ xamee loolu sëñ bu soobee di waajur sëñ bàkki bu sa loola diis ci moom lool rëy ci moom lool ndax xam gi mu xam buuru jolof yi ni ñu fiiree ak niñ ñàkk mën a muñee xam bu wér la xew ca jolof ragal sëñ bi dem jolof mbir yi jaxasoo ñu dikkee ko ci wet gone waaye teewul bi mu xamale loolu yëpp sëñ bi sëñ Tuubaa moom dafa sax ci xalaatam boobu ci pas-pasam boobu mooy sanc foo xam ne dafay ber ñiy jàng alxuraan ak ñiy jàng xam-xam bàyyi Tuubaa sëñ Mbàkke Buso ak lenn ci njaboot gi bi amee nag kon sababu saaxir si mooy sëñ bi dafa sanc Mbàkke Baari ngir wéet fa mën a ñi jàng xam-xam ak ñi jàng alxuraan ak ñoom ñu mën faa wéet ba mission boobu mu àggale ko nga xam ne li tax sëñ bi sanc Mbàkke Bari mooy jàng ak jàngale boo demee ci e, irwaaw na dim danga ko fekk sax sëñ Muhammad lam ñu da ko wax naan xareja min daarihi llati banaha fi jolof li taallumi wa taalim mu ne sëñ Tuubaa li tax mu sanc Jolof te mooy Bari jàng ak jàngale kon sababu saaxir si ci li taxoon sëñ Tuubaa sañ si Mbàkke Bari mooy jàng ak jàngale bi bi mu fi ñëw mu ngi àndoon nag mboolem njabootam ak mboolem taalibe yu mag yi nga xamante ne ku ci ñam fekkoon wàcc mu mel ne Cheikh Ibrahima Fall ak ñu demee ne ñoom sëñ Daaru Asan ñooñu fekkoon na moom benn benn yooyu mu wàcce leen fa Touba waaye nag ku dul ñooñu rek ku dégg coon wi rek bi sëriñ bi ñëw fii moom la àndal ñu sëñ si barab. sëñ Daaru Abdourahmane la ma nga foon ak mu toll ci jàng alxuraan bokkoon na ci ñooñu sëriñ Mouhamadou Moustapha taawu sëñ Touba fekkoon na mu dal jàng ci Touba fii ñuy wax Daaru Rahman ko waaye bi sëñ bi dem dafa ànd ak moom Cheikh Mouhamadou Fadil noonu ak. ñu baree bari ñu tolloon ci jàng. mënees na caa lim ku mel ne maam Cerno Birahim moom moo fi jiitu sañ si barab bi ci ndigalu sëñ bi. ñoom ñëpp ña nga woon Mbàkke Baari ànd ak sëñ bi di jàng foofu ñu tolloon ci jàng xam-xam ña nga woon Mbàkke Baari nekk fa ak Sëriñ Tuubaa maam Cerno di leen jàngal xam-xam. barab a ngi noonu boo xamante ni bii daal. Euh, barab la bopp nun murit euh, war nañu ko jàpp ndax euh, Cheikh Moustapha El Karim Cheikh Mahamadou euh, ak Cheikh Mahamad Fadal Mbacké ak Serigne Sidi Ahmed moom itam ci njabootuk Serigne bi la bokk moo soxna moomi ñoo bokk wayjur soxna Fatou Sylla Libaas moo doon wayjuram ñooñu mooy ñi nga xamante ni ak Serigne Mahamadou Yaddaali bi sëriñ bi di bàyyi ko foofu di dem ci géej gi mooy njabootam gi nga xamante ni ñoom la bàyyi woon ak euh, borom Daaru Muhti euh, dem ci géej gi. lenn ci njaboot sëñ sëñ bi tamit ca mooy waa barsàq yi dëkkaale sëñ bi ña nga fa woon ku mel ne soxna Awa Busa ma nga fa woon ku mel ne soxna Dia Touré waajuru euh, soxna Faat Dia ma nga woon ku mel ne soxna Penda ñu ñu gën koo xam ci soxna Penda Touré moom itam. ma nga mooy waajuru euh, soxna ummi mbàkke taar ba mooy waajuru euh, sëñ mahamadul kabir nga xam ne moo newoon taawu sëñ Tuubaa bu góor dafa teel a liggéey sëñ bi tudde woon ko Mamour Anta Sali tax ñu ko wax mahamadul kabir seen waajur soxna pende bu ya siisee moo gën a soxna pende Touré la ma nga woon euh, mbàkke baari soxna Fatmata Sila libaas di waajuru soxna moom mu sëñ Tuubaa moom itam mi ngi woon foofu kon gis nga njaboot gi waa kër gi lenn ci doom yi lenn ci dong yi ñu war a toll ci jàng ñoom ñëpp ñu ngoon Mbàkke Baare nekk foofu sëñ Mbàkke Buso nag toog Tuubaa nag des fi ak lenn ci njaboot gi. wax nañ ne motoon nañ fi juróom benn téeméeri doomu aadama yoo xamante ne ñoom la àndaloon ñëw fii. barab la boo xamante ni bii itam Samba Lawbe na mi doonoon buur ba Jolof foofu fa la fekk sëriñ Touba jébbalu ci moom ci weeru mai. 1895 jébbaloom googu sax ci la tubaab yi jaar kompaloo ak ma abduloo ba jël cachet sàmbalaw ba bind ca ab leetar Serigne Fallilou Mbacké mi ngi koy nettali ci ay band ci si kaw la jëm si bëgg a xeex yow rek moo tax ni ñi fi ko jëkkoon defoon fekk na moom dem dem rek la bëgg sama kanam la lépp na maa ngi teew dara mu fu mu ci toog na fa ba bis ku ñuy ku ñuy wax ma bi ñëw fa fekk dég-dég boobu yi moo tax mu jikk dég-dégu doole ji yëmbu yëbbu foofee ak mbooloo moom fa yëbbu maanaam li nga xam ne moom la sëriñ Moussa Ka way ci yasaawu sàkkoor xam ngeen ne kenn mënut a wax réewum senegal ay jamono te waxuloo buur yi waaye kenn mun a wax buur itam te waxuloo nag Mbàkke Baari waaye mu bëri itam ñoo xam ne dañ leen di tudd ci taarix te am na lu leen lëkkale ak Mbàkke Baari ku ci mel ne maam ma Abdoulou nag mm, ñu bari xamuñu ko waaye moo Duudu ma mbay ñoo bokk ndey ak baay ma mbay Ahmadou Fara Biram loo ak Fara Biram loo ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay seen baay ñoom ñu ngi dëkk Podor euh, seen baay xaadi la woon seen yaay aussi gay la sant euh, benn imam walla benn xaadi bu nekkoon euh, bu nekk nar mm, moo doon mooy seen maam Euh, jàngoon nañu aussi ndax Duduma Duduma Mbay euh, mi tase woon ak sëriñ Duduma Mbay aaye ko rootal Bamba ngir bon nga ak kañaan nga fii maa yomba mag naa ko dee ko sëriñ bis bu nekk ak sa talaam nay xiif di mar bu mu lekk moom ba muy am bac années mille huit cent nangam amoon euh, baccalauréat dañoo jàngoon jàngoon nañu alquran jàngoon nañu it français ba doonoon ay ay ay ay fonctionnaire kon maam Abdou Lo cercle Njàmbur ak bu Jolof moom la fi tubaab bi tegoon ngir mu nekkoon koo xamante ne mooy dox diggante euh, ceddo yi ak tubaab bi ñu xamal ceddo yi ne leen dañ ko fi andi ngir bépp leetar boo xamante ne jógee na ci nun bu agsee mu mën leen ko leeral jàngal leen ko yéen itam bu ngeen amee soxla yéen tam mën ko mën leen ko bindal ñu andi ko fekk na loolu lañ ko fi andee loolu loolu lañ wax buur ba Jolof waaye la gënoon a sabab. Euh, ñu andi ko fi boobu moo nekkoon koo xamante ne mooy dox ci suuf ngir di leen joxe ay renseignement ci lépp loo xam ne mi ngi xew ci Jolof ak Njàmbur. léegi dafa am benn dossier bu ñuy wax dossier confidentiel foofee ci la tubaab yi doon xamle kan mooy euh, ma Abdoulo ñuy wax ni ma Abdoulo de nit la ko euh, dafa bëgg ak pal maanaam dafa bëggul la wàcc dafa bëgg di jóg rek jëm ci kaw moom nag jàppale nañu ba tàyyi ndax moo defoon ay pexe ba ñu jàpp. Samba Lawbe yóbbu ko Gabon kon loolu mooy firndeel lettre boobu li nu Mbacké yàlla na sunu borom yokk ay leeram doon wax mu ni kon moo nu jàppale woon ci loo xamante ni bi sax noonu xamoon na ni du dëgg waaye ci la ñu sukkandiku ba yóbbu euh, Samba Lawbe mu ni ñu ni nag waaye ba ñu jëlee Buuna Alburi def ko muy euh, ba Jolof ñu yebal ko fa def ko résident la tàmbalee fexeel Buuna Alburi na mu doon fexeelee euh, Samba Lawbe ñu ni nag loolu tax na ñu jëlee ko fa affecté waat ko ci wetu Euh, may sa mbay sàll ca Tiwaawan waaye foofa itam ban ko fa yóbboo ma nga commencé fexeel euh, may sa mbay sàll ci loolu nag mu amoon ak jotee bu mu jotee woon ak sàmmalaw bi sàmmalaw bi génne ko ci fan yooyee dajeeg sëriñ bi nag sanc si mu daal di ñëw nag ngir liñ ko fi tubaab bi tege woon ngir joxe ay renseignement mu ñëw nag ñëw fii sëriñ bi daal di wane ne dafa jébbalu am fi ay fan bi sàmmalaw bi di ñëw fi la ko fekk euh, bi bi bi mag yi jolof fi di ñëw fi la ko fekk ci loolu nag mer mi mer Samba Laobé ne ngir génn gi mu ko génne ngir jote guñ jote jëmm la woon joo xam ne tubaab ji tubaab yi euh, euh, euh, nungu woon nañu ni daal ku bëggoon ak pal la bëggul woon kenn chef ko moo bëggoon a chef ñëpp ba tax na fépp fuñ ko mas a affecté ka fa nekk bu demee daf lay commencé xeex loolu tubaab yi ñoom ñoo ko reconnaître ci ma Abdoulaye Mbacké. séquence bu Samba Laobé boobu mooy mooy ba Jolof ñu financé bi ma ci suba. waaw. bi bay ko ca Jolof ànd ab Jolof gépp ab xale xale la ñu. nga buur bu jógee. waaw. ñu loolu ànd ak gàngooram. fas ñaari góor ak ne. waaw maa ngi jàll moom man. ba mu dikkee Thierno Thierno Sëriñ Ibrahima Fati bi nga xam ne moo amee moo sañ ci daal muuti moo nekkoon daal muuti fekk boobu moo fa ne mooy mooy fi fi mu fi mu la gan yi jaar mu dikk ne sëñ bi waa sama lobe li moo fi ñëw ne ko na na na tekki na tekki te ñëw nu waxtaan laaj ko nag boo xam ne lu yoonam mu ne ko dara dafa dikk rek fekk ma fi ma dikk di ko nuyu si rek di ko sargal maa ngi sama gana yenn fa ñu gënale ko lan goo xam ne kenn su ko gis ci ngoon ci takkusaan yi ko mu di dem. waaw man mii daan na wax maam bi ñuy wax maam sëñ Maam Fall Ñang. man nag maa ko jëloon fi yëpp. xam nga man ma dem àndal daanaka mu ëppalee waa ji am àndal sax ci ci bari. waaw ñëwee nag comme Sambalaw bi itam moom itam euh, moo nekk buur ba Jolof moom itam mu ñëw dégg fi sëriñ bi ànd ay bokkam wax nañ ne keroog ba mu fi ñëw. ñii laa àndaloon ku ñuy wax Toubé Mbaba Nguy ak Alburi Penda ak gànkal Amadou ma Xureeja ak moom ñoo ànd ñëw fii bi ñëwee itam dafa jox boppam sëriñ bi jébbalu ci moom. moom it si fa. sëriñ bi nuyoog moom dara ko moom dal bu mel ni bu mu dalaloon kale. waaw moom bi mu continué moom moom bi mu gis ko demagut. waaw. ci suba sëriñ bi yooyu sama maam mu dem. waaye ñu daal fii xëyee ma dellu tàggu sëñ bi ne ko maa ngi dellu nag. waaw nekk fekk na booba yi mu yi mu moom la xalaw moom lay waxee bu demee. bu mu demee nag. waaw na sambalo bi amoon na ab tampon bu bu mu def ci leetaram mu yàq woon. waaw mu yóbbu ko ko defar waaw maa bu dox na ba dikk yi ko defaree. waaw seen tampon yu bari ne fa. waaw ana ko moom bii ana ko moom ana ko moom waa waa ngi ci bi. waaw. ne ko bi bi bi sàmm la ko doon defar la waaw ne ko ma gis waay ndax pare na mu ne ko waaw pare na te kay kayitu fi yu bari. waaw fab ko def ko nii teg ko ci kayit wu. waaw. sànni si kayit rek mais ne ci soxla. waaw. mu mu dem rek mu fexe ba ku yóbbuwaale. waaw mu ko yóbbuwaale ba ci suba ba ci ba ci suba sax. waaw daal di bind benn lettre. waaw. wax ne man sàmm la ci kayit wala ko bi. waaw maag sëñ Bamba. yow yow borom ndar. waaw defaroo ñu ci yow. nag la doon bëgg tuumaale sàmmalaw bi ngir taqal ko ci loolu nag bind nag benn lettre boo xam ne ni ko sëñ Fallu nettalee xamal na ko yow gouverneur man sàmmalaw be ak sëñ Bamba ak Magu Jolof defarul ñëw nañ sa kaw loolu nag du ñu alburi ma nga xamante ne ba mu la ko waxee bi sàngam dafa daa daw moom waaye waaye waa ñu ngi jëm sa kaw. fekk na Maam Abdu moo bind lettre boobu sàcc tàmpo Samba Laobé def ko ci daal di ko yónnee fekk na sëriñ bi itam sabab bi moom moom moom dafa ne siiw rek génn. am ci wax na tubaab yi ni leen Samba bi lu lu ma ko diggal du ko def dafa def dafa dem ba di ma euh, sëriñtu loole nag ba mu amee mujj Samba bi xam ne ni mënut a nekk ak Maam Abdu Lo moom c'est comme c'était un fonctionnaire interprète principal la woon dafa delluwaat ci gouverneur waaye nag ba mu delloo ci gouverneur la commencé def ay pexe. ndax moom euh, maa ngi jéglu ci télévision lay wax waaye wax lu lu nekkul dafay lu yàgg ci moom ndax rapport bi mu def wax na ci ni dafa ñëw Mbàkke yi ci sëriñ bi ni ko nanu ànd tubaab bi daf lay woo ñu dem Ndar nee na sëriñ bi ni ko euh, euh, maanaam dama amul fas wu ma war nee na mu jël aw fos jox ko sëñ bi ni ko man nga cee war nee na sëñ bi ni ko mënumaa dem sama yaram dafa neexut léegi àndal ak Ibra Fati sama rakk ji eh, pour ngeen wuy ji alors que la réalité mooy moom bi mu ñàkk juboom ak eh, sàmbalaw bi tax na mu doon fexeel sàmbalaw bi mais doon fexeel sëriñ bi tam ndax ci nettali sëñ Abdou Lahad boobu bi borom daaru muuti demee ndar ndax moom convocation yi ñu daan yónnee sëriñ Touba moom moo ko doon gàllankoor ba sëñ bi du ci jot bu ko defee mu ni gouverneur gis nga li ma la waxoon yaa ngi koy woomee du wuy ji kon sëriñ bi luy xew lu ne sunu borom def ko koy xamal bi sëriñ bi bindee leetar jox ko borom daaru muuti Cheikh Abdoul Ahad nee na bi mu demee ci gouverneur gouverneur ni ko ndax boo demee sëriñ bi dana ñëw mu ni ko borom daarul muuti ni ko bu ma demee dana ñëw nee na gouverneur xamal ko ni ko envoyé naa benn détachement pour ñu dem jàppi sëriñ bi l' administrateur de Saint-Louis le clerc moo ko jiitee mais dinaa leen envoyé benn télégraphe fu mu leen fekk danañu fa campé ba ëllëg ca tisbaar bu sëñ bi génnul danañ ko fa fekk jàpp ko nee na dara Daaru Muti ni ko fas yàlla daal di jël saxaar wàcci Louga jaar kër sëñ Omar ñaan ngunjura ni ko damaa soxla fas woo xamante ni du tële mu ni ko fas wi ci wanag wi de yafalu yetti at a ngi ci la tële waaye tërëf du ko def mu ni ko nañ ma koo takkal bañ ko ko takkalee mu dem fekk euh, euh, Leclerc fa mu campé ca Bodi ci la ko Leclerc wax ci rapport bi ni euh, ma ngi fa ñëw waxtu tisbaar nee na ma xamal ko ni ko nag jot naa ndigal ngir toog fi waaye bu ëllëgee ci tisbaar bu sëñ bi génnul euh, dinañ ko fekk foofa euh, jàpp ko nee na ci laa ko booleeg euh, ma ma Abdulo ak ku ñuy wax Ahmadou Ndiaye waaye sëñ Blaan li mu ko waxee ma Abdulo bëgg la borom daaru moo ti waxoon dañ tax na bi ñu bi ñu demee ba ci mu ni borom daaru guddi na damaa gëmeentu dañuy fanaan borom daaru moo ti ni ko man du ma fanaan mu ni ko kon àndal ak ahmadu Ndiaye yéen ngeen continuer te noonu la ko tubaab yi indee ci rapport bi ba ñu doxee ci guddi gi Amadou Ndiaye dafa dàq aw façon daal di daw dugg ci gàjj bi borom daaru mu ci réer waaye moom Serigne Touba moo ko jàngaloon fànni xam-xam yëpp ci biddiw yi ci la euh, euh, euh, tegtalu ba bi muy ñëw fekk na Serigne bi julliti suba ba noppi léeg-léeg mu laaj ndax Thierno egsi nañu ni ko egsee gud bi borom daaru muy egsee nag la ko Serigne bi xamal ko ni ko Jibril wut na la fi indil na la ma aaye boobu nekk ci suratul anfal nga euh, euh, muy ay bi ma doon wax léegi wa is yamkuru bika lasina kafaru kon ci la sëriñ bi wàcc génn mais ba Abdoulaye moom euh, ginnaaw buñ bu mu demee ba liggéeyatul sax fekk si na sëriñ bi ca moomaat la ban ba sañ ci baare bi isni xaalixil braay albaari fekkoon na taalibe gor ca weelo morom gor ba góor gu yàlla yeelo ba mu amee juróomi weer fa baare du duggi xalwatu di ñaan lil baari seytaane dem ruuxale ko ak nasraane ne jaar lay fexe fi soodaani tubaab ba yónnee fa wisit lu kër ga di seet balak doom gis fa téere ak ñeneen rawatina buur yi ñoom sàmbalaw bi ak ñeneen ak ñeneen kon lan moo leen lëkkale ak dëkk bi di Mbàkke Baari maanaam sàmbalaw bi pend moom nga xam ni buur ba jolof la woon te jébbalu woon ci Serigne Touba bi fi Alburi Njaay eh, jógee moom moom la tubaab yi fal def ko buur ba Jolof ndax eh, moom eh, histoire Alburi Alburi moo doon buur ba Jolof waaye li ñu gis ci archive yi moo di ni ay nitam lëloon nañu ak jur ay nag yoo xamante ni bii ci njaañ fi ñuy wax njaañu njaga fa ñu ko lële woon bi ñu demee ci tubaab yi ñu wax Albury ni ko léegi na delloo euh, maanaam na delloo euh, jur googu mu bañ koo delloo wax nañu ni ñoom tubaab yi nag ca dañu jóg euh, dal ci kawam ndax la ko jiitu moom Albury xeexoon na ak Sàmba Lawbe Faal bi nga xamante ni jarbaatub Lat Joor la Samba Laobé mu nga xam ne moom mujj doon dammel du kayoor te tubaab yi doxoon digganteem ak nijaayam di Lat Joor bi Lat Joor ne raay bi du fi jaar moom la tubaab yi jëloon fal ko mu signé leen benn traité xam le ni nijaayam jooju di Lat Joor dootul dugg biir euh, Kayor ànd ca ak Ibra Fatim Sarr ak euh, ñoom Demba War Sall euh, moom moomu nekk dafa am jigéenam boo xamante ni euh, euh, Bourba Jolof Alburi daf koo takkoon bi mu ko bàyyee nag mm, mu doon ko laaj alal te joxu ko ca la ñu xeex xeex boo xamante ni euh, Alburi moo ca gañe woon Samba bi tubaab yi nag wax Samba bi ni ko nag yow yaa tooñ waroon nañ koo fay waroon naa fay benn amende boo xamante ni vingt mille francs la woon ci jamono yooyu mu waroon koo fay Alburi ak limu nag yoo xamante ni waroon na ko ko jox te mujjul la mu nangu woon ni dana ko def defu ko mën nañu wax ni loolu ci la jóge ba fippu ba euh, commerçant tubaab yi nga xamante ni dana woon dootu leen fayu impôt mu dem euh, fekki Demba War Sall Tiwaawoon euh, commerçant yi fa nekkoon mu ni leen nag léegi da di fay ba tubaab yi ñëw fa bëgg maanaam waxtaan ak moom nunguwul ba ñu xeex xeex boobu nga xamante ni bii moom euh, Samba Laobé ca la faatu kon euh, Alburi euh, bi ko fi tubaab yi jëlee mu exilé wu gàddaay dem Doosa nga xamante ni mu ngi nekk ci Niger ci ci la tubaab yi jël wax ni Samba Laobé kat sunu nite woon koo xamante ni bii yàgg na ak nun depuis 1885 kon moom la ñuy jël euh, mu wuutu euh, Alburi waaye tubaab yi ku ñu mas a jël utiliser la ba amalootoo ci yow utilité mënuñu tëb tëb rek euh, folli la waaye soo demee ci conseil privé bu 5 septembre bii di ñaari rakk yi rapport bi da nga gis ni tubaab yi waxoon nañu ni kat sàmbalaw bi daf noo seetaan ndax buur yëpp jàppale nañ ñu bi nuy dem jëli sëriñ bi baar yi mennum sàmbalaw bi moom moo nu jàppalewul waaye bu ñu farmangoo danañu jóg ci ay mbiram loolu moo taxoon ñu comploté ba wax ni moo bind lettre boobu jël ko atte ko ci conseil privé pour yóbbu ko euh, Gabon jël euh, doomu Alburi di euh, Bouna Alburi Ndiaye daal di koy remplacer maanaam daal di koy fal mu doon buur ba Jolof loole nag moo maanaam Bouna Alburi moomu sax moo feeñal moo feeñal ma Abdoulou ndax bi bi mu wuutoo euh, euh, Samba Lawbe dañoo jëlaat ma Abdoulou defaat ko mu doon résident nekk ci wetu euh, Bouna Albouri fekk na xam nga ca at moomee rek ci la Albouri génn dem dem dooso ñu daal di fal Samba Lawbe Penda buur ba Jolof nga xam ne kon sëriñ bi bi mu ñëw fekk na Alburi génn ba dem bi mu ñëw fekk na sàmmalaw benn moo fi nekk buur ba jorof waaye da ngay xam ne Alburi lu jiitu loolu moom xamoon na sëriñ bi ca Kajoor ndax naka jekk moo ko Lat Joor ñoo mosoon di nekk te kenn ku ne xam ne diggante Lat Joor ak sëriñ bi mooy sababu baatin bi ndax saaxir soo gis am na baatin baatin boo gis am na saaxir rawatina mbirum Sëñ Tuubaa sababu baatin ba Cheikh Abdou Lahad moo ko nettali ci discours boo xam ne ñëpp dégg nañ ko ba muy nettali ixtikaaf bi Sëriñ Tubaa defoon ci jàkka yi daarul xudóos jàkka jooju ci pénc mi Sëriñ Tubaa def fa ixtikaaf ixtikaaf kenn ku ne xam na ne ci fukki fan yi mujj ci weeru koor lay am bi gàddaay bi amee junni at ak ñetti téeméer ak fukk ak ñaar ci weeru ko roowu la sëñ Tuubaa def itikaaf ci jàkkay Daaru Xuddoos ba yonent bi feeñu ko fa ba wax ko fa lam ko wax nga xam ne sëñ Abdul Ahad nett na ko ñëpp dégg ko duñ ca jaaraat ngir bañ a waaye rek la ñu ca nett wax jooju mooy la sëñ Abdul Ahad waxoon ne sëriñ tubaa yonent bi da ko waxoon ne ko xutbu samaan duñ ko fal duñ ko fal ko amul ñeent fukki at te yow sa ñeen fukki at manqué na ñetti weer bis ni ko tey dañ lay fulal ñetti weer yooyu fal la tey xubbu samaan sëñ Tuubaa ne ko loolu baax na lool waaye nag fekk booba rasulullahi bi mu ñëw mu ngi ànd ak xulafaalu arbaa ànd ak waa ahlu badrin sëñ baa xamal ko ne ko loolu baax na lool waaye man ñii wër la waa ahlu badrin ñii wër la ca laa bëgg a bokk rasulullahi xamal ko ne ko loolu nag dafay laaj njëkk njëg goo xam da nga koy jënd dafay laaj ay nattu yu bare bare ba waxantee la waxante waxantee ba àggal ba sëñ Tuubaa nangu loolu nag rasulullah xamal ko ne ko ñaari yëf dana tax li nga bëgg mënta am bu njëkk ba mooy sa nijaay sëñ bu soobee nitug yàlla la ku am ijaaba la lum ñaan suñ borom suñ borom nangu te moom dafa laa sopp ba natt bi bu tàmbalee dana ñaan suñ borom tegg natt bi te lépp yàqu bu ñaareel bi sëñ Ibrahima ne rasulullah yi ne sëñ tubaa yow yaa waxoon sa sa dëkk bi tubaa ba ko sañcee ba noppi yaa ne woon xarasaxallaa yaa ne woon yàlla aar na ko ba noppi lor du la fi fekk lor du la fi fekk moo tax kon faw da ngay génn dëkk bi wuti feneen di fa xaar natt bi kon sababu baatin bi bi tax sañ tubaa sañc mbàkke baar yi mooy bi mu waxanteeg yonent bi ba natt yi war a tàmbali nattu yi tax mu mën a bokk ci waa ahlu badrin yonent bi dana ko tubaa gi nga nekk lor du fekk ndax yaa ñaan ci mën ul fa suy ni suñ borom aar ko ba suñ borom aar na ko ba noppi kon lor du fekk kon nekkee mbàkke baare li tax sëñ bi sanc ko ci baatin mooy da ko sanc génn tubaa ngir xaar nattu bi nga xam ne moo war a ñëw te nattu boobu mooy tax mu mën a bokk ci waa ahlu badrin te nattu boobu nag mooy yoonu géej gi kon yaakaar naa mbokk yi li waral sëñ bi sanc mbakki Baari ci zahir leer na li waral sëñ bi sanc Mbàkke Baari ci baatin leer na jamono boobu ki fi nekkoon buur ba jolof ñu di wax sàmbalaw ba pend moom it euh, ñëw fi jébbalu ci sëriñ bi magi jolof yi itam yi ñoom ñëpp ñëw fi ñii ñëw ngir jébbalu si ñii ñëw ngir seet si seen mbokk moo xamante ne dafa ñëw dëkk si ak ñoom mbooloo moomu daal moo jollee tax tubaab bi ñaaw njort ci moom ba tax ñu doon ko woo ak ngir bëgg a tas mbooloo mi ndax xamuñu mbooloo mbooloom lu mu doon jëli naa ci sëriñ Habibu Mbakke yàlla sunu boroom yokk ay leeram imaam moom sëriñ Mbakke Kayoor mu wax ni sëriñ bi bi mu bàyyi ko Touba nekk Mbakke Bari mbooloo ma bari na fa bariwaay boo xamante ni bokk na ci li tiitaloon tubaab bi ndax euh, am na bis nee na sëriñ bi julli gee ci jàkka ji bi muy dellu ci kër gi mu romb ñi nga xamante ni ñoo doon séddale xéewal yi maanaam li ñuy wax séddale reer ñu nekk fa di séddale reer ba bi sëriñ bi di julli ji fajar rombaat na leen fa ñuy séddale reer yooyu nga xam ni kon mbooloo mu bari moo fa nekkoon soo demee ci kalaame yi nga xamante ni bii aussi euh, le buur njàmbur di Ibrahima Ndiaye bi nga xamante ni demoon na ba expulsé murit yi génne leen njàmbur ni luy njàmbur bëgg du faa gis euh, ab murit nga xamante ni ñoom sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ ñoom la daloon ñi njëkkoon a topp yonente bi sallallahu alayhi wa ci ay mitital ak ay ay li tubaab di wax torture noone la ñu leen doon def dañu leen a génne woon njàmbur ni bëggatuñu faa gis benn euh, murit ñoom ñi ngi wax ni tamxarit gi gi sëriñ bi def ci euh, euh, euh, foofu ci Mbacké Bari ñu ni sëriñ bi dafa woote woon ab réunion boo xamante ni juróom-ñaar téeméeri murit daje woon nañu fa ñu ni ñenn ñi ay ancien ceddo lañ yu àndoon ak Lat Joor dañ faa ñëw sëñ bi woote woon fa réunion boo xamante ni dañ doon préparer la guerre sainte jihad te loolu yëpp c'était pour boole sëriñ bi ak tubaab yi ngir seen kalaame yooyu gën a jàpp loolu lañ ci jublu woon demoon nañ sax ba ni Mbàkke bari googu sëñ baa ngi fay dajalewuloo ay fos ak ay ay ay ay ngànnaay ngir bëgg xeex eh, ak eh, tubaab bi te loolu dem nañu ba ci biir ñoom tubaab yi ñu reconnaître ni maa Abdouloo moonu jàppale woon ba nu mën a eh, jàpp Samba Lawbe yóbbu ko Gabon waaye lim nu waxoon dara amu ci ñoom tubaab yi dem nañu ba reconnaître loolu ndax mbirum Samba Lawbe ak Mbàkke bari la ca xew dafay mel ni wëñ gu weex gu ñu ñaw ci euh, euh, euh, tissu bu ñuul. kon daal sababu saayir bi mooy ma Abdouloo moom Samba Laobé la mere woon te gis na sëriñ bi ñëw fi ak doole te xam na ne loolu la tubaab bi di bañ loolu nag tax mu bëgg a dugal Samba Laobé nag tax mu bind lettre boobu nag yónnee ko loolu daal mooy li nga xamante ne moo dox diggante ma Abdouloo ak sëriñ bi moom daal en sa secret daal boo xam ne bi mu fi ñëwee daal moom moo fi am ay fan. nekk ci daara ji lu xew lépp mu xam ko ci loolu nag la binde lettre nag dugal ko ci courrier ba mu dem ni ko suñu fa lu nettalee bi mu dikkee nag yàlla ko ne loo ci xam mu ne xanaa jàppaleen rek ñoom ñaar ñu sokkale buur ba jolof ba fa nekk ak sëriñ ba fa ñëw ànd ak mbooloo loolu daal mooy diggante ma Abdou Lo ak bi. ci suuf bu ñu andee bu ba. ma yokk ci lettre boobale. borom daal gis ko tam xati ko daal li bi nañ ma wool waaye nañ ma wool kii rek ñu ko ñu koy lii sa yaa ko war a ma ko bindoon. waaw mu jaar fu mu jaaroon ko yow borom man Samba Law bi maag sëñ Bamba ak ci xam na. ah ci dara mi ngi nii rek leen li ci xam. jàpp jàppi ko rek jàppi ko rek fekk leen bala ñoo ñëw. jàpp jàppi jàppi leen rek laa xam. kii kii nga xam ne moom la moom sekk fa moom laa fi dem mu fekk ma fa nag. waaw kooku de bi rek. kooku ni ñu waxee kattan bari rek ni mel def ngeen loolu des na ko mën a. Hmm. ma naa ko waaw li ma booleeg. espace yi. waaw dinaa dinaa ko mën a. waaw hmm. wax na ko ay si boobu defoon. waaw hmm. te dafa ay espace yu espace bari. jiraaf njaamu rek wala wala eh, chef yi newoon foofu yëpp. waaw mu dikk ba ñu ànd ak ñoom dikk ba jeewal. mu bàyyee fa ñooñu ñëpp. waaw ànd ak benn benn gaa benn sandarma. waaw sol mu ngi fanaan si. waaw. weesu ak semence la. waaw mu fanaan si guddi hmm. ci suuf Cerno. Eh, hmm. moo moo ñëwati moo ab du dégg si na. mu ne ko woo ku mu dikk mu dikk ne ko man de li ma yónni dañu ma leen dañu ma de kooku gëmeewu ko. ci bëccëg boobee. ci bëccëgu ajjuma bi. dafa dajale wax ne mi bëgg yu bari yëpp. koy sëñ Fall nee ngi koy fàttali ko kon mbir mi yëpp daal ca Jolof la waral sëñ bi ci géej ga ca Jolof lépp génnul ma Abdou ndax ñoom dañoo wax ni lettre boobu ñu ni sàmbalaw bi moo ko bind doon wax Serigne Touba ni ko bu ñu far mànkoo dama bëgg nga jox ma say e, taalibe ma boole ko ak samay soldaar ngir ñu dal ci kaw tubaab yi ndax dañoo bëgg nungu sama nguur nee ñu lettre boobu ma Abdoulo doon doon interprète principal e, te nga xamante ni bi ñu wàccee Samba Lawbe maanaam bi Samba Lawbe doone Buurba Jolof moom ma Abdoulo dañ ko fa affecté woon comme résident muy tuumaal Samba Laobé ni daf ma doon sëriñtu moom moomee dafa wax ni daf doon def benn tournée ci wetu Bambey te kenn ku nekk xam na ni bàmba Bambey ma nga ca Bawol Mbakke Bari <clears throat> mi ngi ci Jolof mu ni dafa doon def ab tournée ci Bambey bi mu demee ba ci digg àll bi ci la fekk benn néeg boo xamante ni kenn nekk fa mu fekk ci ay gaal gaal yooyu ba mu ko ubbee ci la gis leetaru euh, Samba bi boobu nga xamante ni euh, euh, li tubaab di wax ni un crime n'est jamais parfait Euh, man nga rey nit euh, sa carte d'identité wadd fa wala loolu waaye kalaame boobu nga xam ne defoon nañ ko soo demee ci archive yi da gis ni lu fóo la ndax Bambey ak euh, Mbacke yi sore na lool te moom ma Abdoulaye dafa wax ni lettre boobu Bambey la ko ca booru Bambey la ko. ci ci ku wàjjoo bi. dafa ne mi bëgg yu bari yëpp. maa maa maa ngi taxaw. waaw. ko def. jant ba so ci ci aji mu ja ci suba sa ñu daal di wax sew sew nii wax wenn wax sax la dajeen teel sëñ bi ci jàkka ja takkal nañ ko fas mu war ba noppi mu woo ma maag sëñ Modou Moustapha ñun ñaar boo noo fa nekk ci di gone fekk ci penc ma am na foofu garab goo xam ne sax garab la gudd a gudd dañ ko gor léegi waaw wan nañ ñu ko foofu lañ taxawoon booba fa fa taxaw fa lañ taxaw fas fa di ko di war dañuy woo ñu ñëw si wetam fii ñu taxaw daal fii la jëlee woon loxoom bu tedd ba teg ko Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadel na leen dénk naa leen yàlla maa ngi dem ci liggéey bi te ñëw kon daal mooy barab bii ñu nekk tey jii ndax saaxir soo gis am na baatin baatin boo gis am na saaxir rawatina mbirum Sëñ Tuubaa usóori xalaat wal ahla xani tafarraxat li matti lati ma madihil xasidu booba mbàkke baari ak tubaa moo tax ndax ak njabootam booba foofa la nekk nee na samay njëndi wér na sama njaboot tasaaroo na ngir lan ngir tagg gi may tagg yonte bi rek te tagg yi lu ma tagg tagg yont bi mënumaa jot dëgg dëgg tagg yonte bi kon mbàkke baari bi ngi noonu kon daal fii ñu taxaw ci fajar gi sëriñ Tuubaa génne ci kër gi dugg ci jàkka ji génnaat di tàggatoo kon fii ñu taxaw daal fii la tàggatoo njaboot nga xam ne duggaatut ci biir kër gi euh, dem ci liggéey bu tedd bi nga xam ne moo ñu may lépp wax nañ ne bi mu taxawee fii di dem la wax Cheikh Mamadou maa ngi dem maa ngi ñëw na taalibee ya gor ba góor gu yàlla yeelo amee juróomi di ñaan lil dem ruuxale koog nasraane ne leen jaar lay fexe fi soodaani tubaab ba yónnee fa wisit lu kër ga di seet balak doom gis fa téereeg warga